mu ngoog ndax da ngay partagé avis yaax euh, euh, da ngay euh, ànd ci lii Bougane Gueye dañuy wax maanaam pataaral gi nga xam ne moom la suñu autorité def dafay firnde seen ak lajjite ci yaakaar gi ndaw ñi amoon waaw jërëjëf man sorti Bougane Gueye Dany bi sax dafa am benn jàng moo ci am par rapport ak actualité tey bi xam nga ñi ngi mhm. seetlu am na ay njiitu politique yoo xam ne nii yaakaaroon nañ ne dañuy dem ci des si ku jege parce que boo xolee balaa ñuy jëm ci élection présidentielle lu nekk yàkkante nañu ko ak Pastef tey ñi xalaat ne ñooñu noonu dinañ fekki nguur gi moo tax donc man temps yi dëkk bi dafa bëri woon ay problème mu mel ni cun buy ba am ruq bu sedd doo leen dégg ñuy wax nekk ci ay manœuvre souterraine lañ nekkoon hmm? moo tax ku mel ni Bougane Gueye Dany ah amul amul ruq bu sedd ah. après dinañ ci ñëw loolu lépp après inondation yi lépp lu fi xew dafa bëreendoo ah dafa bëreendoo et puis il ku mel ni Bougane ku mel ni Thierno Bocoum seen taxawaay am na solo ak ñeneen bien sûr am na sax xam naa ñoo xamante ne dañ la tekk rek mais après dinañ ñëw parce que yàgg naa la ko wax bi xam nga dafa am benn image bu ci daw yaram mhm. euh, souvent ni ma koy misaalee mooy bu xale yi parce que duñ ko cautionné encore une fois mhm. duñ ci duñ ko encouragé cent pour cent mais bu xale yi di dem wutal Europe xam nga Europe boobu tey lu bëri moo ñu ko teg moo ñu lor à travers colonisation ak esclavage ci ay siècle yu kon dafa mel ni Euh, ñoom dañuy jëli li nga xam ne moom la ñu sàccoon li nga xam ne ñun ñoo ko moomoon ba pare ñoom ñuy continuer di ba tey xam nga muy euh, France ak ak yeneen colon yàgg nañ ci quoi parce que tamit yemul rek ci France chinois yi ngi feeg Turquie la la maam économie am dara économie extraverti fii lépp lu fi njaañ rek daanaka gan ñi ñoom ñoo ko moom voilà donc ñoom loolu la ñuy dem jëli ji mais ci moment boobu noonu xam nga njiit njiit njiitu réew ay symbole la parce que pour nga am adhésion boobu foofu na doon wax sànq nit ñi gëm la dafa am ay symbole yoo xam ne dañu koy déclenché ci moment boobu nga nekk France di toppatoo yeneen affaire loo xam ne xëy na xeebuñ ko sax quoi mhm. mais dafa am lu waroon gën a nekk priorité parce que lu mel nii bu amul ci dëkk Macron heure bi day fekk Macron ma nga France day fekk Macron ma nga France et puis c'est prévoir phénomène bi nii dafa yàgg am xam nga yow bu nga faloo rek dafa am ñaan cœur de message communication mhm. mooy booy wax lan mooy doon sa kàddu souvent te fii ndaw yi moo waroon doon seen xolu kàddu léegi fam na ñaan champ lexical boo daan jàng communication champ lexical mooy yan baat ñooy gën a ñëw ci discours xoolal président Bassirou Diomaye Faye wala premier ministre Ousmane Sonko bi ñu faloo ba tey ndax seeni discours affaire ndaw mooy gën a ñëw bëriwul de dafa mel ni sax sujet bi ñoom dañ koy éviter dafa mel ni dañoo yaakaar na ñoom li ñu dig xale yi réellement mënuñ ko affaire yi naxee mbaay la woon donc ragal nañ jàkkaarloo xale yi naan leen fii ni ñu amuñ solution dañoo télé fépp télé partout mënuñu mënu mënuñu dem alors que du loolu sànq foofa naa wax na ko affaire u dépense yi parce que ci tab bi ñu déjà ci nomination yi. Mm-hmm. appel appel à candidature amuñu ñu obli ñoo amoon obligation respecté ko. parce que dafa doon doon signal bu mag bu fort nga may ne Sénégal yëpp tolloo ci droit nga may ne Sénégal yëpp ñoom ñoo am ay sens loolu dama man parce que ñii yéenewu ma leen échec. xam nga yéenewu bu ñu échec woon kenn xamul luy luy xew parce que ni muy mel ci Abdoulaye Wade ni muy mel ci Macky Sall lay gën a ni mel ci Abdou Diouf mm-hmm. amoon na ci Abdou Diouf déjà xam nga mais ni muy mel parce que commencé wul ci Ablaye Wade émi Moodu Moodu bu ñu koy phénomène boobu noonu ci Abdou Diouf la commencé dañuy ah, temps bi may ñu ko quoi pour ñu ñëwaat. Mm-hmm. ni muy mel ci Macky Sall gën a tar ni muy mel ci kii nu mu tuddati ci ci ci ci Ablaye Wade mais bu ñu moytuwul ni muy mel si ñii mooy gën a tar parce que fii c'est quasi suicidaire léegi dafa mel ni un suicide collectif li Alpha Blondy di doon doon wéy. Mm-hmm. suicide collectif boobu dafa mel ni seen la moo ci la moo ci topp quoi parce que c'est presque le chaos quoi moo tax dañoo am obligation ñoom jàkkaarloog ndaw ji wax leen dëgg mais ñu projeté ay exemple ñu bàyyi tam affaire u nax parce que sama doole fi mu jeexee mooy bu ñu nee ba Colobane amul dara lu ñu teg ci doxu ndaw yi lu dul DER délégation entrepreneur rapide pour les mm-hmm. femmes et les jeunes mm-hmm. mooy taf yëngal yi ñuy joxe dëpp boobu tey président bu ñëw andi ay taf yëngal ci emploi des jeunes ak yooyu noonu sama doole fi mu jeexee mooy bërki dëpp bi ma déglu El Malick Ndiaye nekkoon porte-parole Pastef ci nu mu tuddati ci benn suñu naataangoo muy wax euh, buy buy wax ci kii quoi xam ne day gis lu bët da koy soofantal dangay ngay jàng ci kàddoom wor wor laa ci jàng man loo xam ne mhm. par rapport li nga dégg nit ñi affaire ambel à candidature boo koy soofantal mooy yaa ngi commencé wor encore une fois nañu delloo si waat andiwaat seen xel ñu respecté sénégalais et qu'il fasse une sortie tey on devait décréter même un deuil national c'est un vendredi dañoo waroon décréter un deuil national parce que lii dafa daw yaram pour ñu xam ne lii ñor na la mais moment boobu yaa nga ah di jënd ay saag ak millions kii xaw ma 2 millions xaw ma 3 millions eh, Sambata Ndiaye lu kenn xamul nañu respecté Sénégalais yi. ñu waxtaanee wàllum napp mi ak ministère bi ñu dénk wàllum napp mi infrastructure maritime portuaire daanaka dañu génn ab bataaxal di xam ne kon ñaar fukk ak ñeent ci ay gaal wala navire daanaka la ñu téye diggante janvier ak juillet 2024 euh, ndax dafa am lu ñu def wala lu ñu jalgati euh, loolee nag règlement bi moom moo ko teg seen aw ndodd am na koppar bu nga xam ne jot nañu ko génne ni ay daan bi ñu ko xayma diggante 400 millions jàpp 590. 119 millions suñu koppar atum 2023 cumulu man amande yooyee ñu jot koo recouvrer mi ngi toll ci 103 millions si suñu koppar démb lañ koo xam ne ci ab bataaxal bu nga xam ne siwal nañu ko bataaxal boobee Fatou Lambé Diop moo ñu koy jàngal. ginnaaw ba ñu daal di publier liste bateau yi nga xam ne ñoo nekk nag ci kotu Sénégal. mu am beneen jéego boo xam ne ministère des pêches daal na koy teg mooy nag daal di wane itamit navire yi nga xam ne teg na leen loxo ak amende yi nga xam ne war nañu koo fay. ba tax na depuis janvier ba léegi nga xam ne teg na leen loxo maanaam ñu arraisonné leen toll nañu ak ci ñaar fukk ñeent ñoom nag la ñu def ni ci infraction bokk na di napp ci zone boo xam ne dañu ko tere ay tamit di napp produit halieutique yi nga xam ne dañu koo tere ñàkk yor licence ci zone de pêche ak it jël jën bu ndaw bi nga xam ne waruñu koo napp ak transbordement ci koppar yooyu le bu ñu ko xayma tollu na ak ci ñeenti téeméeri million jàpp juróomi téeméeri million ci sunuy euh, koppar buñ ko comparé 2023 euh, téeméeri million ak ñett yoo xam ne nag jot nañu ko euh, versé ko nag ca trésor public ministère des pêche moom jàpp na nag ci divulgation bi dañu ko def ngir informer action yi nga xam ne nag direction de la protection de la surveillance des pêches mi ngi koy daal di def ngir xeex lii di pêche illégale non déclarée non réglementée mu ngoog euh, euh, Mamadou Fofana wàllum napp mi ak euh, communiqué bi ministère bi génne bañ jàngat nga ci. waaw duñ ne c'est première parce que boo xoolee même rapport Cour des comptes wax na lu jëm ci wàllum licence de pêche pêche yi mais wax na également lu jëm ci pes yi nga xam ne ñu ngi koy def muy illicite illégal. Mm-hmm. ci loo xamante ne nii teguwul ci yoon. parce que te li ci ëpp. boo xoolee ñan ñoo koy def mooy ñi nga xam ne moom mooy euh, les bateaux industriels bateaux yu mag yi nga xam ne ñoo am doole mën a napp quantité boo xamante ne nii day sakkan ñoom ci seen bopp ñoom ñooy enfreindre la loi kon donc boo wax bu ñu waxee ne ay bateaux nañ jàpp li ci ëpp ñoom la te bateaux yi tamit. indi nañ fi ay jafe-jafe yu bëri tey bokk na ci li nga xam ne un des facteurs yi nga xam ne moom moo gën a favoriser l' immigration clandestine muy tey nappkat yi amatuñu loo xam ne war nañ ko mën a napp et boo xoolee même rapport bi dalay wax ne la ñoom bateau yi ci boppam sax benn condition yi nga xam ne moom nga war a remplir en terme de formalité sax pour war a mën a dëppoo ak yoonu Sénégal duñ ko def beneen bi li nga xam ne moom mooy ay amende dañ leen i amende ba pare mais li ci ëpp du ñu fay amande bi ba mu mat beneen bi moom mooy même liñ leen i amende loolu méngoowul ak li nga xam te ne ni code de la pêche moom la santaane donc day wane ne encore ne lu jëm ci wàllum napp gi dafa laaj tey jii nii kilifa yi gën ci am taxawaay bi nga xamante ne nii moom moo war mu di ne yenn flotte yi mënuñu ko nangu tey ñiy def li nga xam ne teguwul ci yoon di enfreindre la loi di doxalee na mu leen neexee beneen bi mooy comment faire avec nos pêcheurs yi nga xam te ne nii li ci ëpp artisanaux lañ nañ leen di def pour gën leen a dooleel quand on te parle de vingt six mille bateaux pêcheurs yoo xam ne ne ils sont dans la pêche artisanale mais ñooñu tey mais c'est une forte communauté boo xam ne ne dooleel leen tey day am solo et donc looloo tax même s'il faut corser les mesures ñu gën a corser les mesures s'il également ñu xool amande yeeg yeneen yi nga xam te ne nii daani dañ koy gën a dooleel de telle sorte dootu ñu mën a enfreindre la loi suñu napp gi au moins suñu doom yi nga xam ne ñoo cee dem di ci góorgóorlu doon ci daan seen dooleem ñu mën a am xememteef pour mën ci mën a des